ci euh, démb ak tey. waaw maa lay fay bu baax. ci kontaan ci ñu waxtaan ci démb ak tey. Mm. parce que démb ak tey moom dafa am solo ci doxalinu àddina bi. Mm-hmm. alors démb ak tay bi ñeel euh, parti bi nga jiitee alliance pour la paix et le développement am na juróom-ñetti at tey lu ko jiitu nga nekkoon ci parti démocratique euh, sénégalais ndax mën nañoo euh, ñëw ci sa jaar-jaar boobu la la jëlee ci PDS ba li sabab nga taxawal parti bi di APD. waaw bu fekkee damay wax sama jaar-jaar sama jaar-jaar moom mënut tàmbalee ci PDS. parce que man dama commencé nekk ci secteur privé. depuis 1976. ma dem doon liggéey ci benn société privée filiale d'une multinationale boo xam ne bi mu ngi tuddoon Davam International. ñu bokkoon ci le groupe Sacilor. la plus grande société de métallurgie de la France. ñu bokk aussi ci Suez. alors ñun ñoo groupe bi ma nekkoon ñoo reprendre woon sax fii Sénélec à l'époque ñu nekkoon fii am monopole dans beaucoup de secteurs. ba nga xam ne bi lépp bu Sonatel masaana jàll Télé Sénégal à l'époque suñu filiale bi moo ci doon toog parce que nous étions la première filiale de l'Afrique de l'Ouest en termes de production ma am fa chance occupé fa poste yu bari ba nekk fa coordonnateur chef de département mujj fa nekk directeur des services technique et commerciaux ba bi ñu quitté Sénégal ci pratiquement rupture boobu ñu def euh, ak Sénélec ak itam ñu bëgg dem feneen ma reprendre filiale bi. Euh, tout le personnel avec les mêmes salaires. tudde ko Sahel Trading SA. ma ciy liggéey ba yàgg euh, benn jour ma ànd ak sama benn xarit benn maître coranique ñu dem kër professeur Ibrahima Thiam dama ko doon gunge. ma dem fekk leen ñuy créer un parti ki s'appelle la CDP Garotti. ma déglu leen muy un ensemble ay patriotes yu fa toog. jiital diine parce que dañu bëggoon a créer un journal buy wax ci affaire islam. ay nit seet si leen ne leen bu ngeen bëggee xeexal diine ak xeexal Sénégal taxawal leen parti politique bi ñu demee di ko taxawal ci laa tombe ma fekk leen ñuy wax waxu wax ju rafet waxu patriote ma daal di bokk ñu taxawal CDP garab gi. lu ko jiitu mosoo politique. mosuma politique ma kon naa ci moment de contestation yi parce que quand j'étais au lycée de Gaulle dàqoon nañ ma internat. le proviseur Tidiane Diop bi nekkoon foofu fu muy defee listu ay meneur de grève ak ay gars yu jaaxle sama tur ca lay bokk. alors euh, ñu vivre fa ay moments yu intense yoo xam ne yii vraiment xeex nañ fa pour euh, intérêt des étudiants. Lucien Lemoine bi muy ñëw foofu si ñun ñu ko doon créer problème ci lañ bokkoon alors xeex nañ fa comme les jeunes camarades. l'heure est grave et affaire yooyu di expliquer que bon il fallait faire la révolution donc am naa ce passé d'étudiant militant léegi nag bi ñu dikkee ma dikk foofu bokk ci parti bi bi ma jokkoo ci parti bi comme j'étais dans une filiale de multinationale alors mun ma woon di fës yenn fës yi j'étais un homme boo xam ne bi dama doon liggéey nekk dans l'ombre mais ma patriote yi ma fa fekkoon ak jeunes yi ma fa fekkoon tax nañu ma dem ci ba jeex jël sama alal yépp def ko ci biir parti boobu parce que xamoon naa ne ñii bis bu ñu yoree Sénégal dañ ko développé parce que patriotisme dëggantaan li nga xam ne moom manqué léegi ak gestion de l'intérêt général loolu moo taxoon patriote yooyu tase ba ma fànde ak le professeur Iba Der Thiam ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm ci yeexeñu tase fa ak des gens comme les Cheikh de Thialaw les Youssou Sow les Mawo Ndiaye les Ba ak tasafa ak le groupe de Rufisque les Falay Noël Diop yal na leen yàlla yërëm ci yeexal leen ay Moussa Bayo Souleymane Youm ñooñu ñëpp de véritables patriotes Ibrahima Fall de Bambey ma monsieur Diagne parti boobu c'était la crème les Ismaël major Fall bi moo nekkoon notre responsable des jeunes bi ñu nekkee ci parti boobu xam nga li ma la donc mu nekkoon nit ñoo xam ne mënoon nañoo constituer l'alternative dans ce pays mais le président Blay étant un animal politique ak ñun ni ñu daan ni ñu ko daan sonnali ci réunion yi bu ñu dikkee fekk ñu def leen résolution def ko ci papier en tête PDS ba pare ñu leen non il faut une autre résolution boo xam ne bi moom mooy traduire nos réunions mais on ne signe pas ce que le PDS nous ñu dikk di xeex ak ñoom di xeex ak ñoom di xeex ak ñoom ba Ablaye Wade di fexe ba ñu def fusion loolu moo ñu indi ñu nekk ay militants du PDS man je ne suis pas un vadiste je ne suis pas un isme ay affaires yooyu nekkuma ci j'étais un patriote sénégalais pour rencontrer d'autres patriotes na amoon un projet pour développer le Sénégal di dem gis ne comme nekkoon nañu en en alliance pour xeex Abdou Diouf il s'est dit que nous n'avions pas le droit d'être dans des entités différentes parce que nu avions un objectif commun qui était le panafricanisme ak itam pour développer Sénégal mu ne nañ fusionner man dama man d'accord woon ci fusion bi. parce que dama formoon sax benn groupe bu professeur Ibrahima Thiam yàlla na ko yaay leen ci yàlla tudde woon le groupe de Thierno Lo en disant que vous vous réunissez la nuit su ngeen ñëwee fii di perturber réunion yi ak affaire yooyu man bi ñuy daw bi ñuy terminer réunion yi pour am dem ci affaire kii bi fusion euh, bi maa ngi nekk hôpital su gars yi ñëwee seet si ma à partir de 18 heures bu 20 heures professeur Ibrahima Thiam ñu fekk ma ci hôpital bu diggante ma Thierno est-ce que les camarades sont passés ma ne ko oui ils sont passés parce que pour moom il y avait un contrôle du groupe à partir de mon lit d'hôpital alors ma tëdd fa di fa tëdd tëdd ba bi ma yàlla defee ma tane mu tasante ñu jàpp datu congrès bi ma ñëw j'étais le coordonnateur des cadres de la coalition de, de du parti ñun ñoo théoriser woon la dualité au sommet de l'État ba quand Idrissa Seck était avec le président Abdoulaye Wade bi ñu théoriser la dualité au sommet de l'État sax taxoon na nu traduire nu en conseil de discipline du parti nañu en tant que convention des cadres pourquoi ñu soulever un problème aussi sérieux en parlant de dualité au sommet de l'État ñu yóbbu ñu secrétariat ñu reyante fa mu tàng mais on on arrive toujours à se retrouver taxul par scission am ci biir parti bi parce que très franchement il y avait un débat tellement démocratique dans ce parti là que yooyu daaw ko yàq dañu naan toog di discuter ba ay une di matin chez le professeur Iba Der Thiam man dama daan wax ak professeur Iba Der Thiam ba ñu toog gars yi dafa yaa ko defe ni dañuy xeex ah mais ñëpp dañ daan wax génn leen ci ils vont finir par se retrouver parce que xamoon na ni bu ma ñibbee un intellectuel pur et dur daf may fekk sama kër ma ñëw toog mu ne ma Thierno je sais que je sais que tu avais ma ñu ay convergence de demee ñu delluwaat mais toujours est-il que du ma gis en aparté di wax yoo xam ne bu ma demee ci assemblée générale day yàq li ma gëm dama koy wax. donc ñii yaakaar ne par exemple léegi les positions que j'ai dit tout comme ça c'est des positions qui datent longtemps c'est des principes qui m'accompagnent léegi ba Abdoulaye Wade di defee loolu ñu def fusion bi. lan moo taxoon yow nga bañ fusion bi. li taxoon ma bañ fusion bi nous étions l'alternative crédible pour dans ce pays. te da nga ne bu ngeen ànd ak Abdoulaye Wade mu yàqu. non man xamoon naa ne Abdoulaye Wade l'appel là bi mu ñu def nii c'était pour briser notre élan et ni ma ko gisee woon comme parti. xamoon naa ni ñun bu ñu fa demee duñu fa mun a dem parce que bokkuñu ak ñoom ay jikko bokkuñu ak ñoom ay méthode bokkuñu woon vision la preuve bañ defee bi ma bi ma bi ma génnee hôpital ñu dem ñu jox ma discours bi ñu ma doon lirloo mais dama ko xotti taxaw wax ce que j'avais dans le cœur bi ma koy wax xale yi nekkoon foofu les jeunes du parti dañ doon jooy Chérif Sané est un ancien professeur mi ngi fi toog Maowa Ndiaye mi ngi toog xale yëpp ñu ngi may dégg may def discours ba pare dañ doon jooy Abdoulaye Wade s'est dit que mais kii kan la ñun ci mooy Thierno Lo c'est le coordonnateur de la CDP ce jour dama mettre l'accent sur ce qui wax fi jëm ak cette famille bi nga xam ne bi yàq nañ ko alternative bi nga xam ne bi am nañ ko parce que depuis la création de notre parti Fodou Doudou Sine a été le premier à voir le danger que nous constituons pour que sur le plan du changement dans ce pays c'est qui avait dit que ce parti populiste qui est la CDP Garbi, il nous a considérés comme des gens très dangereux, avec un discours populiste. Ce pas un discours populiste, mais c'est un discours qui dérange. C'était un discours qui allait perturber l'ordre. C'est un discours on a fonctionné sur la base d'un patriotisme, des principes et d'une foi profonde qui devait guider notre action. Parce que nous, si nous sommes des meeting, si nous sommes ñu bàyyi fa meeting bi dem julli ji bu ñu dellu see fekk nit ñi dem ñibbi. kon fa amoon ay soubassements religieux peut-être leen doon déranger cest que cest dañu amoon amoon na ay soubassements religieux ba certains nous traitaient d'intégristes. Mm. mais nous ne pouvions pas être man j'étais un jeune mm. mais toujours est-il que y une foi profonde ci ñun bu kii boo xam ne dafa doon tax ñu naan dañ doon dindi li nit ñi di wax. dox politique àggul àllaaxira fii la yem ñun dañ doon wax ne du dëgg politique àgg na àllaaxira parce que loo sëq ak doomu aadama bi boo dee di nga ko layoo ce discours là n'arrange pas les politiciens parce que pour ñoom politique wuruj la naxaate la ñun du woon loolu ba pare. loolu tam dafa feeñoon ci orientation parti bi ci parti bi dañu waxoon ne politique du naxaate du feeñ du wuruj loo ci sëq ak doomu aadama boo dee di nga ko layoo ñu dollee ci ne xaalis duñ ko jëli ci bitti. pour ñëw fii di ci defal réew mi dem ci ay élection parce que ku la jox xaalis boo liggéey mu joxañ la fi mu war a dem da nga fa dem Iba Der dafa demoon na ma benn jour sax mu ni jaay leen seen ooru soxna yi pour que ngeen ñëw ñëw utiliser ko pour jël réew mi mais duñu tàllal suñu loxo kenn ku nekk ci bitim réew cette philosophie là d'autonomie pour si jàpp suñu ressource personnelle dañ ko gëmoon dañ amoon partie boo xam ne bu ñu ñëwee c'est une école ku génn CDP garab gi nga gis ko xamal na am na lu nekk ci biir bopp bi dañ daan ñëw bu ñuy def ñun dañu amoon ay bureau politique yu ñuy def tout le temps bu ñu dikkee dañuy commencé situation nationale situation internationale géopolitique jël les questions économiques di ko wax suñu bureau politique laa mas a gis nit ñi di wax ci Sénégal bay jooy le doyen Ibrahima Fall Mame Moussa Diagne le professeur Iba Der toog naa ci réunion ñuy dox ci Sénégal di soor ba ronkoñ tuuru gisuma ko fii benn parti politique au Sénégal foofu ba saane nekk discipline de parti ngay am xamuñu xuloo xamuñu xasse débat yi la ñuy def c'est pourquoi nous étions très percutants en matière de débat ñu demoon nañ benn jeune boo xam ne bii kuñ ñu saana woo ne la plateau da ngay toog ak Mawa Ndiaye gars yu bari dañuy daw duñ dem parce que bu nu dikkee il il les écrase mm-hmm. parce que ay idées lay ñëwee mm-hmm. donc parti boobu dafa amoon ay ressources humaines de qualité ñu waroon a survie def alternative Abdoulaye Wade quand bu ñu mosaan woo waa PDS xam PDS dañu benn habitude su ñu leen woowee réunion su ngeen dikkee fekk ngeen ñu bind résolution bi ba pare ba def ko seen papier ante nun on était des gens qui parce que dañuy ñëw def réunion ñu toog ñu leen non non ça c'est pas la résolution de notre réunion ñu bindaat ko et puis comme nous étions un parti boo xam ne y avait des enseignants gars yi très forts en ba pare ñu leen ko ñu rédiger ko buñ signé ko ñun ñëpp Abdoulaye Wade il trouvait que nous on dérange à chaque fois qu'il y des organisations de l'opposition nous sommes là-dedans te bu buñ dikkee ñun kenn du ñu guidé ci lu ñu bëggul mu fexe ban def fusion bi ñu defee fusion bi ma dem mu jël ma proposer proposer ñu pour ñu dugg ci biir gouvernement bi et ça c'est l'occasion pour que ma je réponde à certains ñi nga xam ne dañu yaakaar ne nit koo gis bu jógee poste ministre bu député bu maire moo ko tax a jóg man ba ma njëkkee dugg ci biir CDP garab gi bi Abdoulaye Wade génnee Moustapha Niass jëkk ñoo proposé nañu nañ ko jox nit pour que mu dem si biir gouvernement bi mais réunion bi ñu def secrétariat man mii lañ proposé woon pour ne man maa war a dem nekk ministre man maa tourné xool le professeur Mame Moussa Diagne nekkoon ci ama droite ca bu daal li tax ma di ko wax c' est que Mame am na benn plateforme bu may taxawal boo xam ne daf ci am benn capsule bu mu ci def boo xam bii moom ci boppam moo fa bind les quelque mois yi ma passé ci gouvernement je dois à loo Lo parce que bi ñuy def réunion secrétariat bi moom la ñu désigné mu tourné na ma yow mii yaay dem donc mu ni générosité boobu ak désintéressement boobu dama bëgg sénégalais yi xam ko dina génn suma benn plateforme boo xam ne ñu ngi koy defar temps yi su fekkoon ni waxu ko woon moom kon du ma toog di ko li fii ci ab rajo mais dafa nekk ku reconnaissant koo xam ne que ku mu gis xam na ne xamoon dina ne Thierno Lo moo ma def ministre. man mii ñu wax ne kaay nga def ministre ma jël post ba dem joxe ko ak dellu soit ak yeneen yoo xam ne proposé nañ ko ma la deuxième fois que ma bañ dem nekk un kon ñii di wax yaakaar ñoom ay poste moo leen tax il faut qu'ils apprennent à connaître les gens. waaw bokkuma ci. donc loolu nañ ko. ak ak ak ak président Wade PDS bi ñu fi duggee ñëpp ñu rejeté nag. Hmm. dañoo def fusion bi ba pare. man maa ci échappé ak le professeur Iba foofu laa doon bëgg a ñëw yaa ngi woon ci congrès bi ba ngay wax ba yenn militants yi di jooy ça veut dire que euh, am na ñoo xam ne comme yow ñoom itam euh, fusion bi ànduñu ci woon naka ngeen mujjee est-ce que loolu wàññiwul woon trop doole yi parti mais fusion bi su fekkoon ne dañ ko defoon de façon assemblée générale de façon démocratique. Mm. mais duñ dugg PDS. man maa doon diriger la front pour éviter que ñu dem dugg biir PDS far ma feebar. ba ma feebar rek professeur Iba nekkoon nañu ko xam ne parti bi ragaluñ ko duñ ko rusoon ba bu ñu xëccoog moom ci yu bëri gars yi dañu mujj bàyyi man maa fa nekkoon élément bi nga xam ne bii bu ma màttee day dagg. waaw day dëgër dégg nga comme nag nekkuma foot ma fekk leen ñu dem ba terminer seen ay réseau mu convaincre gars yi ba ñu ne léegi nañ dem CICES su ma ñëwee ce sont mes amis samay xarit la ñu mënuma bàyyi ma dikk àndandoo mais discours bi ma def Abdoulaye keroog xam na ne fii lii ñu ci biir CICES d'accorduñ ci et yàq na suñu yëf dugal nañu si benn yoon boo xam ne à cause de la générosité du professeur Iba Der Thiam nga xam ne il va d'un extrême à l'autre te ñu rus ko moo taxoon ñu ànd ak PDS mais nous n'étions pas convaincus bokkuñu woon ay méthodes ak te li tax xale yi doon jooy xamoon nañ ne bu ñu duggee biir PDS ak ostracisme ba fa am nga xam ne bi les alliances conjoncturelles yi ñuy def pour combattre les éléments nouveaux nu fa gis te xam na bu dee compétence xam bu ñu ñëw dañ ñun dañ doon ñëw ak ay coefficient ay compétence yu mat sëkk alors léegi na quand les gens là nga xam ne bi lay ils n'aiment pas ce qui brille di def ay alliance conjoncturelle booy yi xam ne bu ñu demee suñ famille bi lay tas la preuve bu ñu fa duggee on a conservé nos relations humaines comme ça mais ñu ci bëri ñëwuñu PDS gis nga fusion bi ñu def waa CDP ñu bëree bëree bëri ñëwuñu PDS man mi fa demoon échappé ñu Abdoulaye Wade jël ma dafa ministre conseil Iba Der Thiam dem dugg biir assemblée nationale mais waa waa parti bi lañoo toog fële jàpp seen jàmbur ne fii duñ fi dugg bokkuñu fi dégg nga mais ñun bi ñu dikkee ñoo ngi reyante seet ñi nga xam ne bi la ànd nañ ak ñun ñu fexe parce que ñun am na ñu ñu ñu rusoon ak fu ñu tegoon Iba Der am na ñu ko rusoon ñëw nañ parti bi man mii daar mu si gëm ma yóbbu fa dëkk def naa fa loo xam ne lii nit ña danañ woteel le président Abdoulaye Wade et puis dañ ma mais l' de la CDP Garabou sur le plan national ñu ci bëri ñëwuñu intellectuel yi ci baroon yu ci bari dañoo dem toog ci touche bi parce que mënuñu dugg ci beneen parti bi ko CDP moo ne parti boo xam bi dafoon nañ fa une famille boo xam bi mënuñu woon a dem ci yeneen parti yi parce que valeurs yi fa amoon ak famille bi ñu constitué woon gars yi toog seen kër lañ mujj def et puis tu sais y a des gens yoo xam ni doon nañ ñëw sax des fois di woote pour le PDS ndax man rus ma ak rus Iba Der mais c'était pas des convictions fortes suivant les méthodes et le programme du PDS yaa ngi wax sànq xeexante bi taxoon ñu bëri ragal a dugg PDS lan nga fa dund lu mel noonu. PDS li Sénégalais yëpp war a xam mooy te bu ma ko waxee ñun ñu ñu duñ ko man je suis quelqu'un boo xam ne bi j'ai défait l'appareil du PDS. Ah PDS dafa nekk parti boo xam ne gis nga booy booy soog a ñëw. il y a une alliance conjoncturelle bu ñuy def bu njubawul woon sax dañuy def bloc pour rejeter. mi ngi mel ni wujj bu bees ci kër. alors comme quand je arrivé. Euh, le président Ablaye Wade bi bi ma ñëwee mu ne ma mm, daf ma def ministre conseil man dama toog foofu deux semaines ma dem bureau ma Mbaye di wax ak ma damay ne ko je veux voir le président président dégg moom may wax foofu mu ne mu ne Thierno qu'est-ce que tu fais man ko je veux mun ma dugg si ma dugg man ko monsieur le président xam nga man du ma nit buy toog ci bureau man ci son dom d'action xam nga toutes les installations les plus sérieuses du Sénégal portent mon empreinte samay doom dañ daan toog ñu ma gis parce que fajar lay xëy bala may ñëw fekk leen ñu tëdd may def tout le tour des du Sénégal pour vendre le confort pour faire des ascenseurs faire de la climatisation faire de la plomberie parce que loolu technique yu entreprise yi CDE ak affaire yooyu di def fii Sénégal man mi leen doon jël kon entreprise sous-traitante parce que damay def étude réalisation maintenance donc les infrastructures les plus sérieuses du Sénégal à commencé par le Méridien Président et la et le palais présidentiel et toutes les banques là alors les grandes banques et la BCEAO emprunte Thierno Lo bii la donc dans un pays qu'il faut construire ku fi toog def lu mel noonu yow bàyyi nga fi ay traces qui ne se effaceront jamais loolu laa daan def léegi nag bi nga xamee ne moom jël noo ma ne ko nag man loolu laa tàmm man tàmm ma di toog ci bureau man su ma dikkee fii di liggéey ak yow nekk si ministre conseil man dama bëgg di la gis di wax ak yow. di bind di la jox nga may tontu. mu ne ma caruloo xam nga tu sais tu dans une euh, usine alors euh, le directeur d'usine n'a pas tout le temps des trucs comme ça man ko nag man directeur d'usine nag bu toogee man ma nekk un élément de la production day war a toog di contrôler ce que j'ai fait. boobu toog bee la déranger wala poste bi la joxoon nga xeeb. mu mel fekk fa ay ministre xam ni ngay waxtaan ak ñoom. ñu ne ma duñ gis président bi dégg nga buñ bindee du leen tontu ñu jox leen bureau ñu toog foofu di jël ay salaire rek man nag loolu bu ma ko naree def ma dem suma yoon parce que man ñëw ma fa pour ay salaire parce que la preuve bi may ñëw di nekk si ministre conseil président lay Wade oto bi ma duggee ci biir palais présidentiel boobu ministre Abdoulaye Wade amuñu ko ñu ngi dawal ay cent 406 man ma ñëw dugg fa avec benn BMW 525 injection full option moom laa fa duggee ak sama chauffeur nekk ministre conseil président Ablaye Wade di fa sama chauffeur bi nekk ci suuf bii may nekk ni suuf Maniang Mbaye la tudd boo wàccee nga laaj ko ma yor ko pendant un an muy toog foofu may sama oto BMW di ko fay salaire joxuñu ma salaire joxuñu ma oto ma toog un an te note bu ma bind président Ablaye Wade bind ci bigam bu xonk boobu ne ma Thierno Lo maam parlé xam nga bu defee maam parlé muy ñëwal seet si ma madame mbay dalay woo nga ñëw ak note bi foofu na laay yëgal Sénégalais yi li tax Ablaye Wade doon di am yenn ministre conseil te duñ ko gis Abdoulaye Wade est un intellectuel c'est lui-même parce que bi ma fa toogee ñuy def la loi Ezzan mu bind ko ne ko président waroo promulguer loi bi waroo ko def l'histoire retiendra un point noir ci yow ca yow jugé nañ la wax nañ la ba pare ba setal la kon bul bul génn gaa yi mu toog woo professeur Iba Der Thiam ndem si yàlla mu ñëw toog ñu woo ma mu ñëw mu toog mu daal ne ko professeur ce garçon là bi nga ma booleel kii du bokk sama conseil yi wax naan du ma leen gis ak duma leen dégg parce que Iba Der nous sommes des intellectuels bu ñu kenn apporté wul dara amulunu njariñ mun nga xool bureau bi fekk bureau bi muy def ay tas yu jóg mun nga gis ni lii yëpp ay lettres la yu ñu ma bind pour que ma bañ a promulguer euh, la loi Elan la mais ce garçon là moom moomu fi bind ma liir li mu bind ça m'a secoué je vais revenir sur la sur sur la promulgation du ma promulguer daal dina ko kii daf may apporter dara ñi ci des xam nga lu ñuy def Iba mun na ko waaw mun ko gis nga xam nga yow Iba Der xam naa la sa élément de langage xam naa ko boo waxee xam naa su bind bu ma gisee loo wax bu ma gisee ci texte dama koy xam ñii dañuy dem seet si la sa kër yow Iba Der poser lay question ci benn affaire nga wax ko ñu ñëw jël seen papier en tête ministre conseil yi eh, bind ko ci jox ma ko comme étant leur production intellectuelle quand je les appelle ñu ñëw pour ma discuter ñoom bu ñu dikkee ma xam ni defuñu ko xam naa ni du ñoom mënuñu koo expliquer parce que su may liir rek ne kii Iba Der moo ko moom moom moom moom moom lan dem seeti kon lii c'est un texte de Iba Der. kon moom la daan analyser sur le plan économique aussi quand je dis lii damay xam ne liñ ma bind mbaa woo leen buñ dikkee du ñoom ñoo ko xalaat ma xam ne ñii c'est des tricheurs. il ne m'apporte rien ma bàyyi leen seen ay bureau di leen fay seeni salaire ak affaire yooyu boo ko defee les gens disent oui le président Blay ne veut pas de conseiller dugg na fi génn sa garçon il me conseille c'est lui qui m'a poussé à faire le conseil au méridien président sur la fraude douanière c'est lui qui m'a poussé en poussant pour que ñu def l'aide à la à la à la à l'aide à l'écriture là nu mu aux aux écrivains maag mm-hmm. Elie Charles Moreau ñoo ci discuter ak le conseil du président la ki est décédé j'oublie ñu dem di ma def ci note ba président jëkk fa mettre les fonds à l'édition waaw c'est l'aide à l'édition mu jëkk fa mettre les fonds bi ma fa toogee aussi maa ko bind ci ay sénégalais yoo xam ne dañoo nekkoon ñu leen di frustré ba ñu bëgg génn Sénégal ñu dimbali leen pour que ñu jox leen seen ay droits donc Wade il réagissait suivant les problèmes que je lui posais parce que mes notes techniques étaient des notes de professionnels parce que dama am parcours xam nu may defee note technique bi xam naka laa koy argumenter c'est pourquoi il me donnait après mu wax ko Iba Der ne ko il m'apporte quelque chose ce garçon wax wax waxam bu rafet wax par toujours boobu laa xam lu tax moom itam muy considéré conseiller yi nekk foofu li ñu ma doon wax naan duñu gis président <laughs> foofu laa amee réponse bi alors bi ñu fa toogee noonu di liggéey ci façon yooyu ci la toog benn jour ma dikkaat beneen jour ne ko monsieur le président très franchement j'ai fait un parcours ici je voudrais retourner au secteur privé mun ma non non. boobu ministre conseil nga ba tey. ma ñëw ne ko dama bëgg a dellu secteur privé mun ma non non cotuloo si département ministériel c'est ça qui m'a amené au ministère de l'environnement c'était pas pour aller rencontrer remplacer mon frère Modou Diagne Fada c'est président qui voulait me donner bu duggoon équipement sax ma naroon yóbbu mu jékki-jékki yóbbu ma ministère de l'environnement c'est le président Macky Sall qui était premier mu woo ko ne ko Thierno Lo lay yóbbu environnement ñu yóbbu ma environnement bi ñu mu yóbbu environnement il y eu le problème qu'il y a eu avec euh, Idriss Seck et mon frère Mor Diagne Fada les gens lui ont dit que foofu itam dinaa defaat benn révélation parce que quand euh, le président a vu que ne dañu naroon ñu ne ko sa doom bi Mor Diagne Fada la ñuy wax dafa waroon nangu sa département bi la naroon nangu parce que da nga leen a bàyyi moog le le le premier ministre Idriss Seck ñu implanter seen ay nit buy contrôler plus ou moins le pays Kébémer bu ko sa doom bi nangoo dañ naan doom ji nangu na département ba ca bàyyam lu Ablaye Wade ki wax de mooy wax de mu ne ma léegi nag nee nañ ma yow rek yaa ci man dara est-ce que di nga ma nangoo jàppale ji parce que yow nangu woo dem ci euh, base yeeg affaire yooyu depuis le professeur Iba Der Thiam tu as voulu toujours être ma ne ko président man def na deux ans fii ak yow soo ma wooyee Tambacounda sax ma dem fa mën naa la jàppale ci département Kébémer loolu moom mu yóbbu ma dem département Kébémer ba ma fa demee li nit ñi seetaanu dama dem foofu mille cinq élection bu fa am ci arrondissement Darou Mousty maa ko gagné masuma perte élection contrairement ak li nit ñi wax masuma perte élection arrondissement la woon booba sept communautés rurales la woon maay gagné sii si samay nit ñoo koy gagné ma yor bu Darou Mousty de 2005 ba 2014 maa contrôlé l' arrondissement de Darou Mousty maa ko gagné. maa gagné législative mu def ma ci département ba la liste waar wi di mooy jeune ma gagné département bi ñu dikkaat deewoo ma gagné sept communes rurales arrondissement Darou Moussi dem gagné ak sama tendance Lamine caam a Kébémer il est toujours maire mais man mii maa ko fa teg de man maa dikk fekk Fada toog seen kaw ma dikk jaxase ko ñu wàcce Goro Fada le vieux Ali Kébé teg fa Lamine Thiam dem Louga fekk fa feu Moustapha Ndiaye ñu dóor ko remplacer ko par feu Samba Khary Cissé donc région Louga ba mu jeex te 2005 2014 bi ma man ma nekkoon président comité la Darou Moussi maa ko contrôlé léegi nag loolu ma doon def nag biir PDS gars yi nekk ñoo Modou Diagne Fada ñoo nekkoon PDS Fada est un produit du PDS nekk fa ñu nekk son seen ay xarit mu ñëw ñu ni waaw léegi pour quelle raison ñuy bàyyi kii jógee CDP garab gi di ñëw fii ab Abdoulaye Wade di ko dugal ci comité directeur bi di ko jox li ñuy ñuy ñuy liggéeyu. ñu tàmbali laa xeex. xeex bi ma doon a sama la lépp loo xam ne waa PDS ñoom seen groupe boobu ñu ngi duñ ma ca boole mais dañuy ñëw defal seen affaire ba pare toog réunion mu jekk gis ma ma ñëw war damay woo cerno tel cerno loo comité directeur cerno tel cerno tel man benn nit laa amaloon relation ci biir PDS amul keneen ñoom ñëpp xaw ma seen kër xaw ma woon seen bureau gis nga le président Pape Diop ak puissance am bi mu amoon nekk président assemblée nationale nekk fi maire gis nga bi may def moom coalition ci bokk gis-gis bi wax de daanoo bi may dem këram dama ko doon téléphoné Pape Diop foo dëkk mu naan ma tourner gauche ak jaareel fii jaareel fii jaareel fii ba mu agsi këram. c'est valable pour tout le monde ñoom bu ndikkee dañuy àndandoo di la jéem a xeex mais tere nañ reyante naa ak ñoom jéem nañ maa génne gouvernement taxul ba ma duggee 2003 ba ni Abdoulaye Wade daanoo j'ai été ministre conseiller ministre de l'environnement député à l'Assemblée nationale ñu dem foofu di séddale poste yi Abdoulaye ngeen jox seen commission. ñu jox ma commission défense sécurité ñu dellu si de defaat euh, amétrement mun leen jox leen ko commission urbanisme ñu joxaan ma ko ñuy toog foofu di reyante ca assemblée boobu def seen affaire yooyu di dugg ci bureau président ba di fa wut ay fonds yi fonds politique man maa masaka man amul premier ministre mosuma jël fonds politique bu premier ministre mosuma jël fonds politique bu président assemblée nationale sama salaire ak sama alalu bopp laa mas di doxee ñu toog foofu di ma xeex ci assemblée bi lu ñu def duñu ma ca boole aussi ca loolu je le reprends j'ai mu ñëw mu jox ma ministère du tourisme ministère de l'artisanat des relations avec le secteur privé et le secteur informel ça veut dire que quatre portefeuilles ministériels loolu mu jox ma ko. waaw loolu yëpp nga am ko ci PDS lan moo tax nga jóge fa. jógewuma PDS encore une fois de plus il faut que nit ñi. Sénégal xam nga dafa bari ay jaxase. jógewuma PDS xam nga lan moo am man bi may ñëw PDS xam nga yow expliqué naa la ni ma duggee PDS. fusion mu ñëw biir PDS awma affaire ku dul ak benn nit. président Ablaye Wade léegi la ñuy lu ñuy def duñu ma ca boole. Mm. léegi ki nga xam ne bi la moom laa amoon loon affaire mais yaa xëy si na Sénégal yi nangu ne en 2012 dañoo jël pouvoir bi ci moom jiiteetul parce que nekkatul sur le terrain ñëpp xam nañu Ablaye actuellement il est secrétaire général du PDS mais Ablaye amatul benn ambition pour être ministre ni député ni président de la République léegi man. bi Abdoulaye waat di dem mais dama am honnêteté wax ko ko dama ne ko gis nga ñii nga fi bàyyi de parce que dama ko yàggoon di bind sax ba mu fi nekkee man ko président soo organisé wul parti bi ñu dem un congrès pour que ñi am base occuper des postes yi nga xam ne bi yow yaa koy joxe boo fi jógee ça va être le xam nga man waxoon naa ko loolu mu pare ma dellu si ne ko président man li ma la mën a waatal gis nga ñii nga fi bàyyi d'abord man dul ma jiite te man duma leen waaw comme nag ñi nga fi bàyyi. mënuma def ak ñoom daal. ci gàttal mënuma def ak ñoom parce que ñoom duñ ma jiite. duñ ma jiite te mosuñu maa jiite. man mii tam duñ nangu mukk ma jiite leen waa kook ana ànd ba loolu mënta nekk ma ne ko nag booy dem man damay jël sama liberté. bi ñu toogee def le congrès bi mu nommé Omar Sarr coordonnateur mais bañ pare man fekk na la veille. Doudou Wade moom ngeen war a seeti gis ngeen ñii dimbale leen yëpp gis nga guddi gi Abdoulaye Wade perte élection yi. ña nekkoon ca biir palais ba du doon mi ngi photo bi ñu bëri ngi rii lamiñ mais fekk wuñ ko waxtaan woon fa doon waxtaan am laa ñoom fekk wuñ ko ña fa nekkoon yow xam nga du wat na dem nga ne ko ceroon loolu nee na nga dimbali ma ngir yàlla foto bi nga xam moom su boppam sax mi la koy laaj nga dimbali ma ma teg ci sama bët nga xool ñan ñoo nekkoon ci guddi googu ci palais bi gis nga lee grandes gueules yi ngeen di gis si ñuy yuuxu yépp di wane ay proximité avec le président il n'était pas au palais la nuit où on discutait des perspectives d'avenir du PDS et que ñu toog foofu di sant Abdoulaye Wade ci li nga xam ne bi le félicité na le président Macky parce que man dañu ko 17 heures laa jógee Darou Moussi parce que xamoon naa tendance yi ma départ bi ma tollee Tivaouane la ma président Abdoulaye Wade woo Thierno foo toll man ko maa ngi Tivaouane mun ma yow tu es courageux waaw man ko je dem palais dikk ñu bàyyi mu dugg parce que guddi googu ku xamul waxuloon nag Abdoulaye doo ma ñëw dugg foofu fekk réunion bi ñu wax ko ñu réarmé waat ko pour que ñu dem ci vers les législatives lan lan demee xuma lu gars yi def Abdoulaye ñu convoque fa la ñu dem mun jël Omar Sarr def ko coordonnateur parti ma ni lii. kon loolu bokkul woon ci li wax li ngeen waxtaanee bokkul woon ci li ñu waxtaanee li ñu waxtaanee foofu keroog man bokk la ma fa wax. dama ne président Wade on a battu on a perdu une bataille mais on n'a pas perdu la guerre gis nga li xew sa majorité dafa dépassé PDS léegi fii ñu jëm ci parlement bi. am na noo xam ne ni buñ ko ni defee on peut imposer au président Macky Sall benn cohabitation tout de suite lu kenn mësul gis Sénégal bàyyi fi waa PDS yi nga xam ne bi leen dañ leen ils sont ils sont ils nga tibb ci ay kilifa ak ay commerçant ak transport yoo xam ne ci yow lañ gëm hmm. ñu def leen ci liste député yi ñu yi ñu dem ci terrain bi xam ne kenn mësu ñi dañu la bëgg ba léegi dañu sanctionné sa ay nit changé nit ñi parce que sa majorité weesu na PDS hmm. loolu la ñu waxtaani woon xaw ma gars yi lu porti porti fajar gi ak suba teel diggante fajar ak diggante fajar gi ak suba gi ñu dem mu mu jékki-jékki ñëw rek def un discours jël Omar Sarr def ko coordonnateur ma ne premier élément de rupture hmm? parce que lii waxantoon kon man Omar Sarr du ma jiite man nee naa ko gars yi duñu ma jiite mu def ko coordonnateur te ñoom la fi bëgg a bàyyi ñuy gérer affaire bi ma ne lii du ma ko def ñu génn mu dem nekk point E di def liste député yi Omar Sarr ci boppam bi ma woowee dafa ma ne Thierno Lo ñu ngi def liste député yi demal point ma ne ko bëgguma nekk député léegi sax pour commencer man bàyyi naa politique. Mm-hmm. waaw loolu la ko tontu. loolu laa ko tontu demuma foofa léegi sax bàyyi naa politique. parce que façon yii ngeen di def ci biir PDS mu yàgg fi ma yàggee sax di continuer ci politique politique dina ma changé. président Wade tam waxu ci. seetiwuma ko woowuma ko waxuma ko dara man ma ñëw toog ja gis nga président Wade guddi gi ma gi ma gi ma gi ma waxanteeg moom ca palais ba. ba nii may waxanteeg a wax ak moom. ah bon waaw def na loo xam ne lii man d'accorduma ci woon génn naa PDS génn génn PDS néew ku ko def rek wax na fa benn jour nettali nañ ma man ma nga àllaaxira sax maa ngi fii foo Ousmane na Seck Ndiaye laa dem seeti këram bi may dem di ko seeti man booba dama dama dama daanu dam yor sama békki moom mu toog moom itam am problème toog këram <laughs> mu ñëw di ko seeti ñu yëg ci kaw sama jarbaat la woon mu ñëw toog dox daara moom mu sol man ma jarul xam nga lan la président Wade wax man ko ne gars yi dañoo dem ne ko alors euh, maa ngi ñëw di bëgg dem ci ay bokk gis-gis ak yow mi ak affaire yooyu mu daal di ne ñu ko amul Thierno Ousmane Masseck Ndiaye bàyyi leen rek dara <laughs> dégg nga <laughs> alors on en a rigolé comme ça après pas bi loolu affection la bu mu ñu porte woon quand même alors il aurait voulu que. ñu dem continuer des ci affaire PDS yooyu. mais mënutoon na nekk parce que man foofu ñooñu duñ ma jiite donc man ma ne ko du ma fa dem ma dikk toog suma kër. du toogee suma kër ma man. damay dem créer ji benn mouvement citoyen dellu ci humanitaire bi nga xam ne bii man moom laa xamoon. nekk auprès des populations. du ma xuloo du ma xaste du ma ŋaayoo. Pape Diop. Mamadou Seck président de l'Assemblée nationale. Daouda Ndiaye. Moussa Sy mii ngeen di gis. ñoom ñoo def délégation. ñëw na ma Girassi ak euh, Balde itam ci lañ bokk ñoo ma fekk sama kër gii Liberté 6. dëkk na ma Thierno dégg nañ ne danga bëgg a pour di mais doo ko bàyyi. am na loo représenté ci biir réew mi da ngay ñëw ñu dem fee ñu def benn mouvement pour attirer l' attention ab Abdoulaye Wade ne ko lee muy def ci këram googu ñam fay jël mënunoo gagné élection yi. la force que nous allons constituer dina pousse Wade à revoir les investisseurs les élections man leen man man yéen man bëgguma nekk député dama bàyyi ñu may force di ma forcer nañ ne man leen affaire ne loolu rek ngeen di bëgg pour attirer Wade pour que ngeen defaat benn liste. ok ñu dem ci lañ dem ñu génn gis-gis créé man ma toog xoola ñoom ñu commencé di xëccoo ay poste man ko wax ma arrière jox la sama place di arrière di arrière ba nekk douzième de la liste ba pare bi ñu defee investir yi ba pare ma dem sama tool fële ñu defaloon fa benn puits ma yéeg di xool bi bi ma ma mason bi yéeg fekk ma si échelle bi ma daanu suma tànk damm maa tëdd sama lal maa doon def investiture région de Louga sama lal laa toog di cotiser l'investiture et les élections de toute la région de luga liggéey bi ma liggéey boobu ma def moo tax Abdoulaye Wade kii euh, père kii nu mu tuddati ñu ñu perte le département de Kébémer boobu ñu ñu ñu seen noonu parce que soo boolee woon suñuy voix ak voix PDS kon le département de Kébémer du dem entre les mains de de de du président Macky hmm. kon du du daanu mais man dama fa liggéey ci bokk gis-gis waaw après nag bi ñu defee bokk gis-gis bu pare ñun nañ ko transformé en parti politique. bi ñu ko transformé parti politique si la ñoom Baldé euh, génn ñoom moom Rousset génn ma des fa ak Pape bi ma des ak le président Pape Diop ma gis ne la xewoon PDS moo nar a xew parce que ay nit a nekk ci suma wet di ma wax ne ma président Pape Diop mënu laa jiiti. président Pape Diop am ay nitam yu mu bokk bokkaloon PDS buy voyagé ñoom lay àndal buy dem ma daal di gis ne lii mënta dem ma bàyyi ko moom voyagé ba ñu man ko président yow da ngay jóg. qui aussi avec ah nous man nga président xam nga lan la lan laa bëgg Pape yow da nga ma fekk sama kër dama Thierno Mouride nga am nga ambition pour le Sénégal kaay ñu créer parti politique après bi ñu defee législative ba pare damaa bañoon nga nekk fa di ma man ma ne ba ñu créé ko nga ni dangay ngay nekk président ma nekk vice président mais loolu mënta nekk ab parti politique ay vice président mënu fee am te lii ma gis fii ñaari mbalka mënuñu bokk benn fu ñuy naanee léegi xam lu naa naa la bàyyee bokk gis dem suma yoon lii moo indi si sama rupture ak Pape Diop parce que dama bañoon di dem ci ay tendance ñii nekk sama gannaaw ñii nekk ci moom ñuy xuuroo xeex mënaat na ko bàyyee naa la bokk gis-gis dem bi ma demee ci laa créer nag alliance pour la paix et le développement pour être dans la société moom mouvement citoyen le président Macky Sall entre temps wooma mu ñëw mun ma caroon jox nañ ma réew maa yoo xamante nañ bu baax xam naa li nga man léegi dama bëgg nga jàppale ma bi ma ko man ko xam nga li xam nga poste bi nga yor mm. yàlla suñ borom moo jël ci li mu moom dénk la ko ubbi la ñaari bunt bii bunt boo ko toppee ajana nga jëm bii bunt boo ko toppee sawara nga jëm xam nga lii maa ngi koy wax xam nga tey rajo laay wax mm. lii boo ko toppee sawara nga jëm léegi nag yow yaay xam ban bunt nga ci tànn su fekkee danga nga nekkal askan bi di def lu rafet di faj ci jàngale di def lu nekk boo dee rek ubbil na la bunt dimbali na nga liggéey loolu yóbbu àjjana bu fekkee nag da toog di taf ni ñeneen ñi di xalaat ay avion ak ay courte courte ak ay batiment feneen ak feneen yow yaay choisir naari jaxanama nga léegi nag man ànd bi ànd ak yow àndu réew mi mooy tax àndu ngor àndu fulla àndu fayda lu moo def ci lu baax danaa ko wax ku ma gis ci ku baax ma ànd ak yow dinaa ko indi mais lu ma d'accordu d'accordu ma ci du ma ci du du ma du ma du ma défendre dara say ennemis aussi duñ samay ennemis parce que man politique. doo xeex xeexu jàmbur politique du ma xeex xeexu jàmbur politique débat d'idée laa ci am ku ma ci d'accordal ñu dem ku ma ci d'accordul nga dem ak say idée ma dem ak sama yos du ma ci xuloo du ci saaga léegi mu daal di ne yow loo ci def baax na l'essentiel jàppale ma ma ne ko d'accord. bi ñuy def alliance bi dañ ko def de façon démocratique maa ngi gisee ñi ñuy toog duma bàyyi ma fen mooy responsable des jeunes assemblée générale leen jëkk def ma wax leen woote bi ma ñu d'accord ci ñëpp. ñu rencontre le secrétaire exécutif de la l'APR alliance boobu ma suta seere wu fii secrétaire exécutif APR les photos sont avec moi soo bëggee naa la ko jox amul ku fa manqué ci ñi ngay dégg ñu nekk autour du président Macky Sall ñépp a ñëwoon teeru ñu ñëw jigéen ñu wax xale yi wax ñu jóge fa moom mu recevoir nu à la salle des banques bañ fa demee notre discours kenn déggu fa ay partage de pouvoir ay jox ñu poste ay affaires yooyu on a fait un discours sur le PSE sur les problème du Sénégal et de l'Afrique amul laaj si ñëw ma ak moom poste si ñëw ma ak moom benn dige ñu jóge fa de 2016 en 2000 2000 2014 2014 ba 2020 les Sénégalais ils ne font même pas attention 2014 ba 2020 laa ànd ak président Macky Sall 6 ans est-ce que ngeen a dégg Thierno Lo ubbee ko bokk ci partam pendant 6 ans ñu jox ko poste est que da ngeen a dégg booy Thierno ak jigéeni Thierno Lo kenn mës a toog ci rajo di wax naan jox ñu ñu léeg jox ñu léeg ñun suñu ngor may ñu loolu. waaw loolu daf ñuy yóbbu on était en alliance mm-hmm. pour des postes. on pour le Sénégal et nous sommes comme ça jàppale ko ba fi nga xam ne bile fi lañ agsi bay wax ak la tax ñu def parti bi. Mm-hmm. président Macky Sall dafa dem l'acte trois de la décentralisation. invité mu woo gars yi par man dañu ma invité boobu xam nga boobu sama parti sa créé gul sax. moment laa annoncé CICES. mu invité ma dem salle des banques bi ma ñëwee toog mu def discours am ma ba kii bi mu daat ne ba mais nag les mouvements citoyens là comme ñoom Zidane yi comme il m'appelle ñun mun duñ leen jox euh, récépissé parce que dañoo bari day nekk benn prétoire affaire ma ne ah, kon nag léegi récépissé moom il faut nga am nekk un parti politique pour am te fii boo fa mu récépissé nekkoo parti même télévision yi bu du la invité ah li nga bugg a wax du du mën a dem te ñun suñu mouvement bi bi ñu ko defee am nañ ay nit yoo xam ne dañoo nekk ay leader dans les contrées di ci ci li ñuy def formation yi ñoon defal jigéen ñee di dem ci koñ yi am na ay leader yu jóg on s'est dit que mais ñii jóg ay leader mais ñoom ñoo war a diriger les collectivités locales parce que ñoom ñoo def ba population yi ràññee leen ñoom ñoo fa yewoo donc en tant que mouvement citoyen nous on va conquérir les mairies moom mu baari ñu la route à partir du récépissé ma ñëw wax ko les camarades là booy xam lu wax daal automatiquement assemblée générale on crée un waaw bu fekkee ne récépissé mooy tax a bokk on crée un parti mais nous allons faire la politique autrement. d'accord kon yéen mouvement gëm sa bopp rek ngeen nekkoon. gëm sa bopp dañuy wax alliance pour la paix et le développement APD gëm bopp. commencé di def suñu ay formation di wër Sénégal di former jigéen ñi en eaux jël si ni di leen former en informatique di def en kii nu mu euh, montage de projet. lan nekkoon seen orientation ca début ba. mais suñu orientation mooy être utile auprès des populations le cadre de la citoyenneté et dans l'autonomisation de des des femmes jeunes yi ñu jox leen ay métiers pour que ñu dem parce que man booba maa ngi gérer le secteur de l' artisanat et le secteur informel. donc am na jaxasoo naa ak catégorie socio-professionnelle yooyu gis naa li ma ci doon def moom laa bëggoon a continuer waat auprès des populations te duma ko def ci politique bu ñu saaga. léegi bu ñu ko defee on a fait une assemblée générale déposer suñu demande de récépissé. dina ñooñu ñuy naj di naj suñu récépissé parce que booba am na ñu doon dox. pour yaakaar ne Thierno loolu nañ ko yóbbu ci APR mu dem jàpp ne président Macky Sall parce que c'est ce qu'ils avaient souhaité que ce soit de l'APR j'ai dit ñett du ma fa dem parce que li ma fa gis ak li ma gis PDS benn du ma fa dem léegi nag ñu téye sama récépissé 2014 ba 2016 deux ans ñu téye sama sama sama récépissé ma gisee ni ñu jox ñeneen lan lañ évoqué woon comme argument parce que euh, biñ biñ koy def xam nga rek samay principe moi je viens je vais au ministre de l'intérieur je prends une fiche bu xam ne ci lañ wax ce qu'il faut remplir pour avoir un récépissé et ñoom ñoom récépissé yëpp fa la noonu foofu lañ jaar mu ñëw ci xam naa galgal bi ma noonu daf yaakaar ne rek dañoo mas a mën a convaincre pour que ma dugg après ma ñëw def sama entretien ba mu jeex jox samay kayit ba mu jeex le commissaire xaw ma le président que en face de moi ma di monsieur le ministre il faut aller déposer maintenant un certificat nationalité man ko man duma la jox certificat de nationalité que yow ñi am fii euh, récépissé yëpp amul kenn koo ci laaj certificat te yow bu fekkee ne man xamoo man am naa certificat de nationalité ba léegi dama ko laaj fii nii du ma ko joxe ñu nekk sama dossier. bi ma ko téye loolu ñu téye sa récépissé. loolu ko parce que moom miy def moom miy def entretien bi jël dossier bu ko transmettre dafa def ma ne ko léegi la yow li tax nga di ma ko laaj ca nekkul ci papier mun ma autorité supérieure. Ah, dañ ko ko laaj loo. ndax man autorité supérieure mooy kay dañ ko ko laaj loo ci li mu wax. autorité supérieure man ko ah bon autorité supérieure mooy primé sur les documents là que vous m'avez donné léegi du ma la jox dara ma toog ba mu ma deux ans ma xëy benn suba appelé ministre de l'intérieur ne lenn rek laa leen di xamal sama récépissé bu ma ko jotul deme j'ai fait une conférence de presse et je vous attaque au niveau du conseil constitutionnel te vous allez voir parce que li ma am droit su ngeen ma ko joxul mooy di ngeen am ak man problème boo xam ne bii xamu leen fu muy tàmbalee ak fu muy jeex. lu tax nga xaar deux ans. soo ko pour booba maa ngi yaakaar ne waa ji dana yóbbu sama man de la façon ko implanté. waaye xam naa ne bis bu ma àggee ma ko war a soxla ay élection yooyu dañ ma ko jox léegi gis nga ma leen ma woon ne ma sa récépissé mi ngi nekk fii kaay nga jël si ko ma dem foofu jël ko un gendarme lañ ko jox mu indil ma ko ma jël sama récépissé dem résidence Mamoun annoncé que ne jot naa suma récépissé donc man li nit ñi di yaakaar nii di defe ni man dama nekk en accointance avec le président Macky man amul lu ma dajul ci nguuru président Macky Sall les gens oublient même que man président Macky Sall yóbbu na ma dikk hmm. man fii laa toog def benn conférence de presse ci bokk gis-gis booba c'était le temps où les gens parlaient de l'homosexualité gay parade yi doon am ak yooyu ñu def Sénégal yi di ci wax ma tam benn conférence de presse laa doon def un journaliste est venu me poser une question en me disant monsieur le ministre qu'est-ce des homosexuels ma ne ko xam nga lu ma la bëgg expliquer yéen yéen a jël affaire homosexualité di ko di ko di ko di ko di ko wax di ko di ko wax di ko wax ba nga xam ne bi nit ñi dañ ko démystifier xale yi léegi wax homosexualité ak ñu koy wax sax léegi kenn amatu ci gàcce bu njëkkoon ci suñu société traditionnelle de tout le temps dafa masoon am ay góor jigéen dañ daan ñëw ci xew yi di fecc di tàccu mais ça ne suspecte pas les gens parce que kenn daaw ko wax nii dañ koy gis rek nit ki efféminé comme ça c'est façon ñu koy mais yéen da ngeen koo wax a wax a wax ba nga xam ne bi léegi ñëpp di te gis nga góor jigéen fu ngeen dem fekk ko fa man leen mi ngi ci daayira yi déglu mi ngi ci daayira yi mi ngi ci gouvernement bi mi ngi ci banque yi mi ngi ci fépp journaliste bii def liggéey dem titre ne Thierno Lo dit que le gouvernement dans le gouvernement de Macky Sall il y a des homosexuels dégg nga c'était le journal L'As man daal ma toog euh, le deux jours après euh, sama kër bii fii la gars yi jëkk a jaar euh, ñun leen maa ngi aye fële ñu ñu woo ma ne ma ñu ñoo soo ne ma monsieur le ministre la DIC on pour pour vous man leen man aja xaar leen Nous, nous avons deux agents très corrects. Non, monsieur le ministre, nous, ko vous connaît. Vous êtes un véritable républicain. Prenez votre temps. defal sa dékki après boo paree rek yow nga ñëw ñu dund la yóbbu. ils sont partis. man toog naa suma kër ah. ñoom bi ñu gis wax ñu digle de bi ñëwee sama kër gi fekk kenn xamul ne digle man dama toog naa sama kër ndékki ba pare jël sama chauffeur ne ko nan dem dig waxuma ko sama soxna. waxuma ko Pape Diop bi ma bokk bokkaloon bokk gis-gis man maa demal sama bopp maag sama chauffeur chauffeur bi sax xamul woon fu ma jëm dama dem digg rek moom taxaw fecc oto ma wàcc dugg ci biir bureau bi fekk fa commissaire bi mu jël aas bi daana monsieur le ministre yow yaa wax ne gouvernement Macky Sall ay góor jigéen dañ fay am gisal titre jox ma titre bi man ko mais ubbil ubbil ubbil ubbil journal bi ñu lire euh, li si biir boo ko boo ko defee ma man la tontu mu liir ko journaliste bi gis nga lii li ma waxoon. moom la wax ci biir article bi en disant que Thierno Lo a dit que l'homosexualité nous l'a démystifié et que on pouvait trouver tel tel tel tel tel man ko mais kii c'est de langage lii moom man maa ko wax. mais j'ai pas dit son titre là en disant gouvernement Macky saal ba am na góor jigéen yu fa nekk. wóoruma loolu wax ma. mun ma non non non monsieur le ministre xoolal pour nga ko bañ fee yàgg léegi waxal waxoo ko rek. mën na ko yow loolu doo ko dégg suma gémmiñ pour nga defee ngeen bu ma génnee fii hmm. ngeen Thierno Lo ñëw na fii lépp li mu waxoon yëpp génn na da ngay def PV ma signé ci li ma wax leer nañ ma ne mu mu toog foofu yéeg ci kaw di ma téye foofu ñu dem naa fa 10 heures ba 16 ah waaw parce que ñoom dañuy ñëw di la entendre bu ñu toogee ba ñu bàyyi la fa yéeg ci kaw dañuy dem di jëli ay ay mots d'ordre foofu quoi ñu wax leen hmm. ñu wàccaat nga wax ak ñu changé keneen ñëw et puis bay ñëw da ngay ñëw ñuy def ay affinités yow waaw monsieur le ministre yow euh, yow moom ñun dañ lay suivre yow ni nga baaxi nii kii karab karab xoola en croyant créer des affinités pour te pousser à dire certaines choses quoi ah waa ji daal daa commencé wax naa monsieur le ministre waaw ñun lay gisee fii yow nit ku baax nga dugg na fii génn fii man ko hee arrêtel sa jëb yi sama baax ak samay principe yooyu indi wu ma fi te wax loolu dañ na wax loolu nañ wax ci affaire kii bi. boobu tamit da nga jàppoon ne loxo Macky Sall moo nekk ci ginnaaw. non moom xam naa ko. téye bi ñu fa téye ak yooyu bi ñu ma woo dikk woo bi ñu ma wax naa ko wax naa ko wax naa ko kii euh, Mamour Saleh à l'époque wax naa ko Mimi Touré aussi parce que man xam naa ni Macky Sall ci boppam maa la wax lu leer xoolal kenn du ma woowu dikk booba ca laajoo ko ko waaw na ko Zidane mii i a dit que bi am na ay ay ay ay ay ay nañ nañ ko woo comme je le connais c'est mon ami il a dit waaw xam naa ni daleen leen di wax daan Zidane comme il fait le malin woo leen ko waaw ñu woo ma yóbbu ma foofu mooy ñoom xamoon nañ ni loolu ñoom ñoo gën a lire journal bi xamoon nañ ne lii munu ma mu mun mënuñu ma cee yóbbu tribunal mais dañ la fay sonnal xam nga 16 heures ba 10 heures ba 16 heures nga toog ci benn place boo waxee kenn mu dem keneen yéeg man mos naa dikk mais terewul ba mu fa toogee dama wax li ma war a wax ba pare génn journaliste yi taxaw interview ma la ma doon bañ ñu daal di dem man dem sama kër dégg ci rajo bi ñu ni yooyu ceeroon loolu na mu waxoon weddi na ko ba mu seet wecc man man dem si àll Sidi Lamine ndeysaan sama xarit doon dégg affaire bi man ko Sidi envoie moi des journalistes mu yónnee ma mu gars yi ma dem Walfadjri ma defal sorti na leen ku ko wax waxoo dëgg léegi nag dama leen wax nañ leen jox PV bi nañ leen jox PV bi bu leen joxee PV bi danañ ca gis leneen loo xam ne lii waxuma ko woon ci biti mais wax naa ko foofee ci biir PV jotuma ko wax fii rajo bi tey nee naa leen nag nañ nañ génne PV bi fa la léeb doxee tàbbi géej waxaatuñ ci donc man sonnal nañ ma sama récépissé yóbbu nañ ma fi dikk donc man c'est pas par ay complaisance que la ànd ak président Macky Sall. d'accord soo doon évaluer tey ànd bi APD APR lan lay joxe. ànd bi may ànd euh, ak euh, APD APR lenn moom am na ci mooy le président Macky Sall il a respecté Thierno avant. la naissance de la PD depuis que nous avions été dans le gouvernement du président Abdoulaye Wade fa lañ xamante fa la ma respecté la preuve la preuve bi ñu ko defee directeur de cabinet sa première sortie bi mu doon dem Gabon man yóbbaale na ma dem foofu donc yàgg na ma respecté xam na samay compétence donc Thierno Lo en tant que tel nii président Macky Sall xam na ko respecté na ko c'est pourquoi mu proposé ma fi ay ay ay ay ay responsabilité j'avais j'avais décliné parce que je peux pas aller dans des endroits yoo xam ne mun ma fa def production mais lui dans sa générosité ak itam bëgg a ne Thierno Lo ma ko bàyyi muy toog ci biti nit ñi yaakaar ne sama diggante ak moom doxul mais amul compétence moo tax mu indi ma fii pour que ma nekk fii PCA alors donc je le dis à mes camarades de parti nee naa leen lu tax ngeen gis de commencé di def massification partout yow Fatou xam nga si dara mm. fi ñu dem ci biir Sénégal fépp suñu implantation boobu massification à outrance bi nga xam ne bi la def nañ ko sur le plan de la production intellectuelle sur le plan des œuvres sur le plan du digital sur le plan de de la formation et de l'autonomisation des femmes ñun dañ ko def de façon concrète mais soubassement bi ñu boppam dama ne woon les camarades gis nga la force que vous représentez il faut ngeen wane ko sur le terrain pour que le président Macky Sall sache que Thierno Lo n'est pas un singleton c'est un simple et que yi nekk fii ak jabar yi nekk fii parti bu nekk war na ko mën a soxla et vous êtes capable de diriger le pays. seen objectif justement. waaw waaw wan leen pour que nit ñi xam. ñun ñooy kan. ba pare dañoo am benn projet de société am suñuy opinion yoo xam ne ñoo ngi koy génne ñëpp xam nañ ne. APD am nañ benn philosophie am nañ benn programme de gouvernement parce que ñoo ngi koy génne toujours à travers les réseaux sociaux mais programme bi ñu mooy d'abord première la gestion d'un intérêt général au détriment des intérêts particuliers. parce ñuy wax. non non parti yëpp duñ ko wax. déggoo fi benn parti boo xam bi dans ce discours day génne le principe de l' intérêt général au détriment des intérêts particuliers. ah dégg le. defoon naa defoon naa defoon naa parti bokkul. la patrie avant le parti bokkul ak privilégier l' général parce que intérêt général boo ko bëggee privilégier il faut d' abord ngeen am un sens du patriotisme. lan moo naka def particularité wu APD. particularité APD mooy benn duñ xuloo duñ xaste de nos sagas on mène un débat d'idées un débat de programme la preuve bi ñuy lancé euh, APD ñi ñëwoon ca au CICES gis nañ ne bañ fa demee un dañ ñëwoon fii kenn du sol grand boobu kenn du fa tàccu kenn du fi def sabar kenn du fa grand boobu kenn tàccu fa kenn du fa sabar kenn taggaate wu fa bi ñu dikkee on a débatteur ya fa doon wax ñii kii dafa wax affaire agriculture kii wax affaire artisanat kii wax affaire la la petite enfance kii wax éducation ñu def bi ñu paree les journalistes ont dit mais yéen vous avez présenté un programme de gouvernement loolu moo taxawaloon parti bi ci loolu la ñu nekk toujours am benn école du parti boo bi ne dafay réunir ay 15 jours yu nekk di former les jeunes di leen jox citoyenneté di leen jàngal business plan di leen jàngal seen ay institution di leen jàngal qu'est-ce que c'est une loi de finances rectificative qu'est-ce qu'on appelle le taux de croissance qu'est-ce qu'on appelle le di leen jàngal di leen jox ay instruments pour ñu dem éduquer leen ci débat démocratique c'est nous qui avons sorti le concept débattre sans se battre s'engager et assumer ak la gestion de l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers nous avons ajouté aussi pour dire que ni société d'expression plurielle lañ nekk le consensus de obligation mais le fait de savoir ce que Fatou pense ce que Malick pense sans pour autant que nous ayons un consensus ou d'accord c'est un postulat en démocratie nous avons fait gis nga bi ngeen di wax fii yéen ay affaire dialogue ñun ñoo fi jëkk def benn lettre ouverte aux forces vives de la nation ba mu mettee di demander à ce ñu def dialogue di demander à ce que ñu privilégier waxtaan et que ñu bañ a sànni kenn et que ñu ens ñu dem ensemble pour fertiliser la réflexion ñoo fi jëkk def benn affaire après bi ministre yi premier ministre yi defee seen débat yi Euh, euh, euh, de ki kii politique daf kii de politique générale. ñoo fi njëkk a la question de souveraineté kii nu mu tuddati autosuffisance. Mm. en disant que l'autosuffisance alimentaire alimentaire c'est un problème de souveraineté et de dignité nationale. nous avons fait un texte boo xam ne bii dañu mettre ne pour que nous puissions génn ci nañu dem vers la maîtrise de l'eau nañu dem avec nos voisins mauritaniens ñu drainer ndox bi indi ko pour que fu mu jaar nit ñi mën a def culture maraîchère pour que ñu créer benn exode urbain on a dit que ne sans l' agriculture nous ne pouvons pas connaître le développement agriculture la ñuy am diversification des cultures des banques et du transport pour que ñu ne maintenant vers l' industrialisation boo xam ne bii tant que defuñu ko duñ dem parce que Sénégal mënut a defar sax puso fii ñu toll yamuñu foofu récemment j'ai été voir le khalife général des Mourides sëñ Mountakha ba ma fa demee man naa fa dem di fa def li fa yóbbu nit ñi mais loolu duma ko def ba ilaa yu mi diir te ñaanuma kenn defal ma ko dem foofu di wax sëñ bi ci famille bi laa bokk fexeel ba boole ma ak président Macky Sall mu yokk ma léegi mu jox ma leen ba ma demee ba may wax ci kanam mbooloo laa waxee dama ñëw mën a ko sëñ bi ñun de dañoo ñëw pour seet doole ji nga xam ne bi la moo la ko jox investissement humain murit bii say taalibe ñi ngi nekk Ndakaaru Njaay di yor ay kees di nekk ay marchand ambulant te li tax mooy mbay mi moo leen yorutul léegi wool sa taalibe président Macky Sall mu jël dooleem ñëw boole kook investissement murit investissement murit bi nga am ñu dem jëli ndox ma tani mbaa ñu jëli ju ko mbaa Lac de Guiers na ko mu ñëw fii sa taalibe yëpp génn waat agriculture bi développé wu nga yóbbu Sénégal ci kanam beneen di des ma ni ko nit ñëpp ngi fëgg seen dënn fii ñu toll wool politiciens yi ñu nekk ci langue politique ñu ñëw fii nga waxtaan ak ñoom balaa ñoo toog ba ay nit di nelaw ñu leen di woo di ko soog def comme ni ñu ko def woon le 8 mars mu ni ma loolu de dëgg la ca danañ ci dox gis nga sëñ sax ma xam nga il a il a il a lancé un appel aux forces politiques mm. wax leen ñun de yaakaar naa ne participer nañ ci lu mel noonu ba ñu fa jógee ñu ñëw regrouper deux cent cinquante jeunes ñu porter li couleurs de l'APD boo xam bi dañ cee def paix et développement ñuy march pour la stabilité du pays fii lañ jaar marche fii dem ba ci VDN bi marche fa def fa discours génnaat population yi ngay romb ci mbedd mi. amul kenn ku leen yuuxu ou bien ku leen saako dañu wax ah ñii nitu Thierno loolu donc ñun ñoo ngi distingué wu. kon a ngi def la politique autrement. mais ñoo ngi def ñoo ngi fexe ba ñu naan ah xale yi Thierno Lo jigéen ñi Thierno Lo ça veut dire que wuute nañu ak yeneen jigéen ak yeneen xale yi. déjà ñoo ngi marqué suñu empreinte ñoo ngi joxe exemple ku ci ñeme ku ci ñeme ci ñoom. na wàcc fii waaye te 250 jëm na. marche ci mbedd mi déedéet déet marche ci mbedd mi rek. jéem a def nii dañ koy yuuxu dañ leen di yuuxu parce que modèle yi ñuy wane. Hmm. rafetul gis nga comportement bi may def nii mais ça nous a coûté cher. Hmm. parce que on a des cadres émérites ay jigéen ay kii mais joxuñu leen ay postes de responsabilité parce que ñun du ñu def laudation. Hmm. ñun duñu xuloo duñu xaste ku ñu jàppal ci suñu xam-xam ak suñu comportement jox ñu ay cër. ñu ko jox parce que métal yi ñeen yi utiliser duñ ko def ak sénégal mala malheureusement li fi nekk mooy mën a la saaga mën a xaste man a xuloo ñu woola pour noppi loolu jox la postement ñu jox la xaalis ñu nag loolu du jox jox bu gor war a jël gor du soxla ñu jox ko ci saaga du soxla ñu jox ko ci ñàkk fayda du soxla ñu jox ko ci mu wax mu wane melokaan bu mu wër te mel kooku jaral ko nit ñi nag booy boo ñu piailler le seul reproche les gens n font mooy Thierno Lo est allié au président Macky Sall <laughs> mais kooku man dama koy assumer parce que la Fatou nañ leen waxante dëgg man gisuma alternative crédible actuellement dans ce pays gisuma benn offre bu gën li Macky Sall di def bu ma gisoon lu ko gën mm. gisa bu gisoon lu ko gën nga wàcc ko fi dem leer na temps bi man fi baax laay dem. waaw mais li muy li muy def nii mais gisuma ku ko tane. ko gën temps bi moo ñu xoj lool fii la ñuy yemale waxtaan wi amoon mbégte lool sëg ko ak yow dellu si ci démb ci wàllu politique li indi nga taxawal parti bi di APD mu doonoon solo si waxtaan wi tey monsieur le ministre Thierno Lo jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay gërëm di la sant tey ñaan sénégalais yi nañu xam ne rek réew mi ñoo ko bokk. mën nañu am suñu ay diffé des différences parce que man maa ngi nekk ak président Macky Sall nekkoon ak président Abdoulaye Wade mais j'ai toujours marqué mes différences mais nañ seet li ñu mën a boole ñu ànd ci li ñu mënta d'accord ku si nekk wax ko mais bu ñu fi indi violence di indi fi ay saaga yoo xam ni day tax borom xam-xam yi di noppi mais man nag booy saaga yi booy yooyu di saaga noonu danoon sonn parce que man lu mu gën a saaga ma gën a ma gën a mën a wax parce que réew mi ko ñun ñëpp ñoo ko bokk samay doom dañ cee war a ñëw li nga xam ne ñëpp ko bokk nag man bañuma ñu saaga ma ci bañuma ñu wax danaa ci dox ca leen rek moo tax ma di ko def na ma ni góor saaga amul jërëjëf monsieur le ministre Thierno ci kàddu yooyu la ñuy jeexalee démb ak tay bi amoon mbégte lool dalal ko ci gërëm leen yéen ñi doon teewlu gërëm itam Diabo Diallo mi ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha ñu waxtaane ko teewluwaat ci réew mi officiel